yes wala boog la famille j'espère que vous allez bien maa leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo bien sûr avec votre grande chroniqueuse borom matricule 221 xaritu ñëpp et dalati leen ak jàmm ci suñu chaîne YouTube Kenza 221 mais bien sûr la chaîne des news, la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game, mais aussi la chaîne des plus belles chroniques. Donc, bu leen fàtte abonné en même temps ngeen activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui suivent. alors sama gars yi tey nag dama ñëw pour def une réaction concernant la toute dernière vidéo qu'a mis en ligne Omzo Dollar intitulée The Last Dance. comme d'habitude nous allons réactionner ensemble expliquer détailler after à la fin de la vidéo yéen tamit ngeen mën a joxe seen xalaat ci commentaire yi comme ni ma koy waxee sama gaay yi yéen rek laay topp topp ma keneen ay ca sa maintenant ñu dem alors avant tout umpale leen ni ko Omzo Dollar mu ngi waaj benn concert le 21 décembre 2024 à Dakar Arena bien sûr juste après la sortie de son album intitulé Saay Saay Poésie la ñu ko annoncé mais en même temps en nous faisant savoir que c'est son last dance maanaam son dernier concert depuis lors nag gis naa ni que mu ngi euh, ci communication bi parce que récemment def na conférence de presse au cinéma Pathé démb mu ñëw génneel ñu une vidéo de last dance juste pour continuer la promotion du concert The Last Dance, non seulement la vidéo, elle est impeccable, elle est extraordinaire, mais aussi les lyrics. Wow, pop, pop, my god, benen affaire la ñu dem. I say, I see sous manager, fingen lop manager, je le point par point, ben point gen mora ou nigga manam Alors, fi dañu am une technique de next level sur manager ak manager. Ñoo bokk même prononciation mais pas la même façon de les écrire. et quand il dit ay siisu man âgé genre dans le game dafa am ay mag yoo xamante ni dañuy siisu pourquoi ñuy siisu parce que bëgguñu nangu ni que Omzo Dollar dafa mën a rap et su ne fi ngeen lab ma nager dañu am jeu de ci lab ak nager nager mooy fay et à vrai dire boo mënee fay pour nga lab du yomb mais bu nee jëla point par point on peut avoir une technique de comparaison maanaam comparer deux choses ou bien deuxième si wala deux personnes et mën nañ jël exemple ci la comparaison de deuxième si donc pourquoi pas le le pas comparer moom ak Dip Doundou Guiss xool ko daaka rap wala comparer ko moom ak yenn MC pour mën a xool ko daaka rap raison pour laquelle on a une technique de comparaison et su nee benn point rek ngeen ma raw ni maanaam G bon fii nag dafa wax affaire bu salte ko waaye yéen ma gën a xam bon le point G c'est un organe sexuel une zone érogène du vagin maanaam awra jigéen profondeur bi nag mi ngi tolloog ak à 4 centimètres donc profondeur bi yaatu na mais fi Omzo Dollar li mu bëgg a wax mooy lenn rek moo ko différencier ak yeneen rappeurs yi muy lan moom royal ni gëla par contre yeneen rappeurs yi ay góor jigéen lañ à ah bon sama gaay salañ on continue cas j'ai feeling j'ai managé Tupac Biggie managé saram ndey page rap wolof moo raw ak képp ku ko mës a managé damn oh my god gars yi fii dañuy am une technique de Danafor L'anaphore c'est une technique qui consiste à répéter plusieurs fois le même mot à la fin de chaque phrase boo leen xoolee mu ngi naan cas G feeling G maana mais fii dañuy am clash envers la page Instagram Rap Wolof moo raw Rap Wolof moo raw benn page Instagram la boo xamante ni dafay promouvoir artiste rappeur yu bari mais en même temps lépp lu muy publier ça concerne la rap galsen mais Omzo daal clash na ko ba saaga ko ndey boole ci en même temps képp koo xamante ni mës na koo ménager léegi nag sama gars yi la question est c'est quoi le problème lan moo waral clash bi ban problème la Omzo daal am ak la page Instagram Rap Wolof moo raw à vos claviers bàyyi naa mu tëbb. donc gis ngeen li moo nekkoon lyrics yi on a essayé de décortiquer bien sûr quatre mesures dong la mais à vrai dire nice na et que bari na ay technique ku xam Omzo Dollar xam ne loolu du ñu bett ci moom parce que est un lyriciste. à part loolu aussi j'ai beaucoup adoré la qualité de la vidéo réalisation bi beneen affaire la c'est top mention spéciale à ce donc mi ngi noonu gars yi wax leen seen xalaat ci commentaire yi noo leen gisee Omzo daal noo leen gisee la vidéo The Last Dance ak tamit nan ngeen gisee clash bi nga xamante ne ni clash na ko la page Instagram Rap bolof moo raw Avoclavier bàyyi naa mu tëmp mi ngi noonu.